damay nekk jom mi nag ba pare ci li xam ne moo dal sama sama sœur sama lépp dama jom mi jom jomet daal te mu émission bi nag da ngeen ne toyu boy kon coow am na rëbb nag ca coow la man maa ca biir coow la mm-hmm. ba pare nag ngeen ne balaaf de notre démocratie xam nga balaaf mooy ñaas mm-hmm. maanaam tey suñ kanamu démocratie dafa yàqu ci réew mi ci àdduna bi mm-hmm. dañ ñoo defal ay ñaase ki légat yoo xam ne rafetatul kenn mënatu koo xool ñun ñun la njëkk a éliminé ñun ñun ñu njëkk a ñun bi ñëwee man yàlla dafa def ma nekk mandataire bi kon man processus yépp laa jaar ñu ngi def tirage bi Sonko moo jàll quatrième position man ma ñëw cinquième position mais Boubacar dafa ñëw jàll am na ñaar ñu ca tege Sonko keroog bi ñuy woo maître Ciré Clédor ñëwul kon man maa dugg mhm. mais pour dëggal li professeur di wax ñun li ñu éliminer dafa mécanique gis nga processus bi muy wax ni dañ si jaar ba pare li mu déposé chegam ñun def na suñu chèque comme ñëpp quittance bi mu wane am nañu ko attestation bi ñu ko délivré parce que dañuy dem wane na yow sa banque lii am na fa am nañu ko bi ñuy déposé nag ñu yóbbu la nomenclature des dix pièces. benn dara manqué wul. bi ñu ñëwee nag ba nga xam ne léegi nag éliminer ñu moo ci des parce que loolu éliminer rek la tudd. na clé nag la ñu dugal. bi ñu dugalee clé bi nañu yéen Saint-Louis vous avez dix mille parrains et Saint-Louis deux vous avez mis trois mille parrains. ça se comprend parce que clé bi ñu la jox boo nekkee dans une soo amee dix mille parrains da ngay ubbi beneen fichier. moo tax bi ñu amee Saint-Louis treize mille ñu def dix mille parrains Saint-Louis def trois mille parrains Saint-Louis deux Saint-Louis deux. ñu def ci entête bi noow candidat bi. def ci entête bi noow délégué bi. ñu ne nag 5000 Saint-Louis 1 defuñu entête bi rempliruñ ko dañuy bifeel 10 000 kon mooy du ngeen jàll. <laughs> léegi nag li ngay wax ni c'est pas des humains bi ñu waxee loolu ñun ñu toog ci biir saal bi ñun leen waaw li ngeen di wax nii yenwul maanaa d'abord c'est pas le discriminat dañ ne boo dugalee carte bi dañu xool date de péremption bi. kon kay mënoon nañu focaliser ci loolu mais dem di dugg ci ay euh, antennes yu ñu remplir ak remplir loolu yenwul maanaa tey tamit dans la version papier remplir nañu ko. Hmm. bi ñu toogee loolu gêné leen ñun suñu cas rek la ñu délibéré ñu ne ñu génn leen ci saal bi parce que booy dem da ngay dem ak le représentant national. Hmm. ak tamit la mandataire yow ak sa informaticien ñun dañu génn ñu délibéré ñu ñëw rek ñu bife ñun nii lan ñu éliminé bind ñu éliminé ñëw toog man ak xam nga maître nag da di koo xam ne bu fekkee yow da nga milité woon RND ci Anta Diop jamonoy Abdou Diouf mu jël général Dieng dugal ko nga def recours mu daanu si sec bëgg a jël ombre lay Wade def ko ci liste législative nga def recours mu daanu yore droit de l'homme dem défendre Alpha Condé ba mu nekk président kooku du como hmm. du ko tuuti. du ko tuuti moom. biñ ñu éliminé nag ñu toog. gis nga tey ñii di regroupé nekk ay vingt personnes ak vingt deux vingt trois vingt quatre suñu idée la ku ñu éliminer rek ñu woo la demuñu nag communiqué jaru ko gis nga conseil constitutionnel faw mu génn communiqué faw am nañ obligation génn wax ak nit ñi xaj na mënu ko ñu wax alors bi ñu woowee Assome jaata ministre Assome jaata la njëkk a woo ne ko ñun dañu bëgg nag créer benn regroupement ñun ñi nga xam ne dañu daaneel mu daal di woo ministre Alioune Sarr ñu woo ñépp nag far hmm. dimanche lanu dem teeru bi bi ñu añee ba pare ñëw nag hôtel Les Mamoun ci la nu def suñ communiqué ku nekk wax li la naqari ma dese fa ak benn Diop moo ma xàmmee sax ma ne ko waa mais benn qu'est-ce qui se mu ne man le 22 ah 2002 2022. 2022 wote naa à Paris. ma ñëw ñu ne man xam ne wuñ ma ci fichier bi. mais loolu aberration la moom la tey ñëpp di wax même xale yi juddoogul sax xam nañ loolu léegi expression boobu un crime n'est jamais parfait. Mm-hmm. ñëpp koy wax léegi. Mm-hmm. ñëpp a ko xam petite section boo fa demee ci réew mi école maternelle yi xale yi ñu ngi koy wax naka nga mën a waxee ne kii moom en tant que candidat nga ne nekkul ci fichier bi te il paraît du moom rek parce que même maritaw gis naa mu def ci benn poste ne moom tam ñu koy wax loolu gis nga affaire u yi ñuy wax ni am na ci ay militants yoo xam ni déposé na seen caution parce que Europe la ñu nekk am des entreprises virement interne la ñu def kon déposé na seen caution dañu leen a bëgg a sosal leneen def ci am nag ci catégorie ñi nga xam ne daane na leen six personnes ñoom Mouhamadou daana kan patron banque islamique nga xam ne ay start-up politique la ñu créé ñoom seen clé lañ mënut a ubbi. kon kay coow am na am deux versions moom du day am ci clé bi ak papier bi. gis nga clé bi bu ñu la ko joxee. ci clé boobu rek nga mën a remplir yow say données c'est la version numérique. mais terewul nag da am papier. mais ñoom lijjantiwuñ papier bi te papier bi li lay wan ne mi réewu lan la man xaw ma ko. fiche boo ci dem dañ lay wax nota bene un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat mm -hmm. le parrainage multiple entraîne un emprisonnement d'un mois à un an et dix mille à cent mille francs demande mhm. article L quatre-vingt-onze du code électoral mhm. te deux mille dix-neuf damay dégg ñu ne doublure am na mhm. lu tax demun poursuivre loolu kon y problème suñu pays bi dama xamul li fi xew nii lan la xaj na nag imposture moo am et l'imposture et l'hypocrisie de la conviction. Mais la conviction mais nappa pas véritablement le poids. L'hypocrisie n'a pas le poids de la conviction. De la Comme le mensonge mmh. n'a pas le poids de la vérité. De ne lii mu am ci réew mi c'est de l'imposture. Hmm. ñun tey sunu kaa ñun ñun dañ koy fàtte man ma tasee am satu man fàtte naa sama bos metteetul. ci liñ ko teg. dafa metti essai de la justice parce que pièces yi mu génne yépp moom laa génne foofu la ñu jaar vraiment donc il y a une volonté manifeste oui d'éliminer des candidats loolu loolu loolu le professeur Mary wax parce que professeur Mary Teuw Niane ce qu'il a dit je fais partie de mes